jërë ngeen jëf mbokk internet yi ñuy topp ci Medina TV ci Sénégal waaye si àdduna wërngal këpp ñu ngi leen di nuyu mbokk yi di leen ziar amaan mbégte ak contentement jàkkaarloo ak yéen comme ni ñu koy defee saa su nekk tey a noonu dañ muy Abou Cefa bu ñu ko waxee kenn du ko présenté ci li nga xamante moom mooy axlu làmb dañ koy nuyu bàyyi ko mu nuyoo ak internet yi nga xamante ñoo ñuy seetaan ñu wéyal suñu waxtaan waaye balaa loolu Medina TV leen di jaajëfal ngir saa su nekk rek ànd bi ngeen di ànd ak moom ngir lépp loo xamante la ci xew-xew la ci réew mi ak bitim réew ngeen mën koo am à temps réel abu ñu ngi lay nuyu am mbégte loolu <laughs> a baax di amati mbégte bu di jano ak yow ne nii mooy mbokk internet Médina TV yëpp képp ko am ne mu ngi leen suivre fu ne ci àdduna bi rek ñu ngi leen nuyu di nuyu tamit fi ngeen ma fekk fi ngeen fekk tamit mooy fi mooy sama kër di Actubuzz TV di nuyu ñi fi nekk ñëpp di ko dale ci kilifa gi Elmo ba ci baba Babacar Aliou ñun ñoo fi nekk di ñaan tamit yàlla defal leen jàmm ak salaam lépp loo xamante ni ñaan nañ ko ci weeru koor bi mhm. yaa suñu borom defal ñu ko mhm. waaw di nuyu àdduna tamit di nuyu ñëpp tamit wax dëgg yàlla di nuyu tamit Baye Ndiaye Baye Ndiaye mu Aziz Ali Ndiaye maa ngi nuyu baax a baax mhm. Baye boo xoolee jàllaba yi may sol di yii yi démb ak yëpp wax dëgg yàlla moom ma ko jox al waaw <laughs> Baye moom a yubbil mooy xool mu neex ne ma abukaay ma yóbbu la ay jàllaba yu rafet wax dëgg yàlla ma sol ay jàllaba ñëpp xam nañ fi may jàllaba sama yëf la waaw fi may réew kuy sol jàllaba ku ne daf may tàggu parce que maay borom jàllaba yi bàyyi moo ma jox ay jàllaba ne ma abdou sol si jàllaba yi waaw moom tamit mu def geste bu rafet wax dëgg yàlla di doomi géejawaay tamit di leen ñaanal ñoom tamit rek yàlla defal leen jàmm ak salaam di ñaanal équipe alburax bi yëpp di ko ñaanal ñi nga si wàllum ceeb beeg diwlin géeg lépp ngeen baal ma si bi waaw nam nam nit démb ñëw naa ñu ñu invité ma ñu waxtaan ak ñoo waxtaan yi am solo ci wàllum làmb mu recevoir ma tamit ci biir saalam ñu waxtaan wax dëgg yàlla mu génne ay teraanga bari jox ma ko waaw parce que àdduna fi kenn kenn du géwél ku ñu defal lu baax nga wax mm-hmm. waaw loolu la maam jaara dëgg la eh, ginnaaw bi ñu la nuyoo comme ni nga ko waxee léegi la ñu nekk. Mhm. ñu lay baalu àkk di la baal àkk di mhm. ñaanal ñëpp jàmm. Mhm. mais balaa dara dañ la naka koor gi ba pare. waaw koor gaa ngi nii ñuy meññ a koor gi <laughs> xam nga koor wax kat day métti parce que woor di wax rek dafa tar <laughs> mais léeg-léeg euh, kenn amul suñu fay. waaw kenn amul seen fay mais kenn amul suñu fay ñun ñëpp parce que boo xoolee euh, réew mi fu mu toll rek grâce à ñun la. mooy ci wàllum communication yi rafet ci wax ju rafet. ak ci loo xamante ne tey àdduna bi dañ ñuy déglu parce que tey bu lépp ne tekk rek presse bi amul dara doxut kon dara du baax. Mm-hmm. kon mbokk bi dañuy jaajëfal jëfal nga xamante tey journaliste yi ñu téye micro yi muy animatrice yeeg journaliste yeeg animateur yeeg mm-hmm. journaliste yi yeeg du di caméraman yeeg ñëpp daal technicien yi. Mm-hmm. di leen ñaanal ne yàlla na yaa suñu borom sàmm dafa leen jàmm salaam di wax ne ñu ngi jëm si ci mbir mu am solo mooy ci mbirum élection nañu moytu bu baax a baax. parce que réew mi euh, euh, ñoo xaw manqué ay bàjjen ñun ñi nga xamante ñoo yooyu nekk ci mbirum kat yi waa presse bi ñoo manqué ay bàjjen lool na mën ñu moytu lépp lu ñuy def nañ ko saytu mooy ci information yoo xam ne dina te wóor mm-hmm. moytu bu baax a baax a baax mais Sénégal moom jàmm rek la fi yàlla di def moom Mm-hmm. ayca am na solo ginnaaw bi ñu la nuyoo Abu mm-hmm. euh, ñëpp xam nañ ne Abu CFA. Mm-hmm. Abu Géejawaay la dëkk waaye bu ñu nee Pikine yaakaar naa ne benn tànk ba fa la nekk duñ la laaj sa digganteeg pikin ndax wax nga ci waxati ci waxati ci dinañ ci ñëw ci biir waxtaan bi ndax moo ñu tax a jóg waaye dafa am combat boo xam ne dafa taxaw mu ànd ak coow muy Modou ak ki nga xamante ne moom mooy Siteu mu nekk combat boo xamante ne ñi ñaa ko doon xaar ñii xaaruñu ko woon ndax dafa am loo xam ne dafa doxoon seen diggante ñoom ñaar Alburax euh, jàmbaar production moo décroché décroché combat boobu noonu. Mhm. bi nga toogee dégg ñu ne combat boobu nañ ko. Mhm. question bi nga laaj ni man dama yàkkamte ñu laaj ma question bi ci diggante combat Modou Lo ak Siteu. Mhm. Euh, combat am na nag ay polomique yu ci am mais ku ne dafa am gis-gis booy gisee ak gis-gis booy waxee man sama gis-gis man ne combat la boo xamante ne ni du combat mais làmb la ci biir làmb. ba tey man la du combat Siteu jëfut lu tax mu war a mën a bëre ak Modou Lo yaa ngi dégg mais Modou Lo liggéey na tey ci làmb loo xamante ni tey am na droit taamu ku ko neex mu bëre ak moom beneen bi Siteu dugg na parcelle daan leen daanati leen Siteu Zos Siteu Papa Sow Papa mu daan tey moom mooy. directeur technique et jàmbar académie mm-hmm. actuellement Papa Sow mooy préparer Modou Lo ci ay combat am mm-hmm. waaw léegi coach coach bi nga xamante ne may préparer Modou loo ay combat am coach boobu Siteu daan na ko mm-hmm. te Modou Lo ak Siteu bokk nañu adversaire muy Papa Sow Modou Siteu waaw kay maa ngi ñëw Siteu dañoo bëre Modou daan Papa Sow avec manière Siteu bëre ak Papa daan ko jël bu musul am ci làmb léegi ñu pare foofu na ñu taxali ko ku ne wëri dem sa yoon Siteu bëri ak Lac de ñu të donc Lac de Guiers moo am ci moom ndam par avertissement mais dañoo të Modou Lo ak Lac de Guiers même Lac Modou Lo diggante moom Lac de victoire ba mu ci am mooy ci avertissement la mhm. benn avertissement la Lac de Guiers amoon ci problème rek kilote bu génn mais kon boo xoolee kon lamb ji war na jaatu Boy Niang ñëw Lac de Guiers manœuvrer Boy Niang daan ko ci ak manière mais Lac de Guiers ñëw na manœuvrer lu Siteu Siteu tenir na ko bëri nañ 10 minutes Siteu tenir ko bëri 5 minutes Siteu tenir ko 3 minutes prolongation. te Boy ko daan Boy Niang daan Siteu daan na ko. boo kii Boy Niang Lac de Guiers dafa daan Boy Niang mm-hmm. mais euh, Siteu ak Boy Niang bëreeguñu. bëreeguñu kon dèjà Siteu mënuma koo bañ wax ne eggul cour des grands mu ngi ci cour des grands bi Siteu ëpp ñu ko seer kase ëpp ñu ko mbooloo yaa ngi ko comprendre mais ci réalité làmb Siteu ak la ak ak Modou dafa teel parce que Siteu dafa échec si saa kees dafa échec si guy gi et cetera et cetera ci combat bi dañu koo perte Mame Balla no recul bu bu bu Pikine dafa daan Siteu ci troisième combat u Siteu euh, Demba Diop kon boo boo xoolee kon euh, sama per Bécaye nee na bu Siteu doone roi Siteu euh, bu daane Modou Lô ñu ko war a woowee mhm. waaw loolu question la tamit. ah day am point d'interrogation quand même parce que dafa am difficulté ci poids lourd yi nañ ko wax. Ah, euh, ci roi des arènes ñu am ci làmb. Mhm. jamono Yékini ak Manga 2 roi des arènes yi fi gis yëpp voilà dañuy wax diw roi des arènes roi des arènes mais la taxaw ñu wax roi des arènes ko ci làmb ja Yékini dafa toog 15 ans daanu yaa ngi comprendre su ma doon noté ay roi des arènes damay ci ci génération bi bi bi nga xam ne jamono ji ñoo téye couronne yi bu Balla Gaye laay gën a volable lu tax parce que Balla Gaye dafa ñëw fekk ku ko xamante ne tey 15 ans daanu kenn suñu koo laaj ci làmb. bañ a bañ a Modou Lo ni Modou Lo dana ay conseil am laa soxla sama grand la suma nijaay la. ñu ne kon ah nañ day xool keneen ñu nañ xool seen yëkk ni ku ne di laayam laayam di jaar feneen Balla Gaye mu ne ko. grand bi ma ko joxee ma daan ko parce que maa ko lu ma gëm mu wax loolu noonu ñu ne ah booy dafa euh, dafa waane wala dafa osé dëgg la dafa osé mbër bu osé day màgg jar Balla Gaye dafa osé mu nekk doomi mbër mais tax ko tax tax ko mu bañ a dooni mbër de doon doomi mbër tax nga doon mbër mais dafa dem entraîné yi dem def boppam mbër waada mu ñëw ba toppatee si man doomi mbër laa mu jël Yékini daan Yékini boobu Yékini musul dégg muñal ay ngi dégg kon boog si roi des su may su may su may joxe ay qualité roi des arènes dama koy commencé si foofu parce que Balla Gaye dafa bëri ay moroomam ci ñoom Bac Seras ñoom Papa Sow Boy Sey Qualify 2 ah Tyson Tyson Junior ah mu daan daan daan ba tollu foo ma ne Issa Pouye daan ko Eumeu sen daanaat ko daanaat ko deux fois xam ko comme Balla Gaye kon ramper na catégorie bi. daan ay magam daan ay maasam. daan ay maasam daan Balla Gaye 1 Baboy daan Moustapha Guèye da Bombardier moo ko daan mu ñëw ba bëri ak ki nga xamante ne tey mooy mu daan ko mu daan Yékini daan Gris bu daan Yékini mm-hmm. kon roi des arènes boobu c'est valable mais tey Siteu bëriwut ak ñooñu ñëpp mais moo loo bëri na ak ñooñu mm-hmm. yaa ngi comprendre non roi des arènes Modou Lo roi des arènes bu bu ñu nangu la mm-hmm. roi des arènes Lo roi des arènes bu valable la ci làmb xam nga làmb des fois euh, dañu dañu bëgg a yàq làmb ji am na ñuy woowee VIP 15 ans amuñu victoire. Gris Bordeaux 15 ans te pourtant ba kasem dafa cher ba amul le VIP la. mais quand même liggéey na ba egg au sommet. Gris yow combat Gris yi Gris daan. limal ma ko bu xam nga ci benn combat te ci làmb ngeen nekk. Gris daan na Bombardier. Ah, ak Mohamed Ndao Tyson. daan na Tyson. 99 la daan Bombardier. yàgg na de. mais ba mais est nekkul tey jii nii euh, niveau bi nga xamante ma nga fa woon wàccul niveau am ndax peut être xale yi fi nekk itam. léegi jéemuñu koo fee dindi. léegi mu bëre 2009 xaw ma 2008. Mhm. daan Mouhamed Ndao Tyson. 2008 mhm. ak léegi 15 ans. ngir mhm. bëri amul victoire daanu kenn. mais lamb nag moo baaxoo léegi loolu. waaw bu léegi ku jure ne man maay VIP maay VIP xam nga ñooy VIP jamono ji ci lamb ji. man ñi ma jàppee ñooy un top VIP. ci lamb ji jamono ji ñu toll. bu ne Ama Balde. rëg-rëg mm-hmm. saa kees. est-ce que dañ ciy génnee franc. franc dama ko ciy génne lu tax mu ngi soog am combat VIP ñamagut ci kaw. Mm-hmm. xam nga lu muy saf. Mm-hmm. rëg-rëg dama ko ciy dugal. dafa daan Bombardier waaw moo ko yóbbu au sommet. parce que dafa ñëw xam a xam nag boo xoolee mais nañ ñëw ba ci kanam daal gën a leeral. mais Tapha Tine itam kenn du ko ci génnee gaynde bawal. <laughs> Ama da ko daan. <laughs> yaa ngi dégg mu ñëw daan booy Niang beneen loobi la. Mm-hmm. ñoom ñooy VIP ñoom ñooy VIP jamono ji ci làmb ji mm-hmm. mais ñeneen ñi fi nekk ay paa lañ rek ñu ñëw di taxale ay bombardier paa lañu dañoo màgget ay Gris Bordeaux ay paa lañu <laughs> non dañuy wax làmb mais dañuy may xale chance quand même logique na mm-hmm. ñu may xale chance parce que voilà avancé nañ ba avancé mais ñooñu léegi ay Eumeu Sène Gris Bordeaux bombardier ay ay màgget nañu ñoom ñoom moom ñoom xale yi fop màgget nañu lu bëbar xale yi màgget nañu ay 10 ans 11 ans ci làmb mais làmb la ñu soxla yeneen làmb yi bees làmb yi bees yu ñu mooy yeneen combat yu bees Modou Lo ko waxoon ci njëlbeen Modou Lo li def war ko def. Mhm. nee na leen su ma jël rois arènes sama lay may sens. Mhm. yaa ngi dégg mhm. Modou Lo jël Ama Baldé ba mu jël Ama Baldé Ama mu jëlaat bu mu ca Mbacar. ne kaay ma bëreeg Balla Gaye xaaral ma ko. mu jël Boy Niang bëreeg ko. mu xool la ci war ñu naan tafaatin ñu naan mu jël Siteu ne xale lay may sens. te xale dañoo jar a may sens ci làmb tafaatin du defaat 10 ans ci làmb Siteu dese na vingt ans ci biir làmb Ama Baldé dese na vingt ans ci làmb Reug dese na vingt ans ci làmb ay xale lañu kon boog bu ñu bëggee làmb yi soppeteeku ay làmb yi bees xale yooyu la may sens ci làmb Siteu ak euh, Modou Lo na ci suq day defar làmb day suqali làmb day tax làmb toll fi mu tellaatoon au niveau yaa ngi làmb yi taxaw ren ba làmb suba leen moom làmb musul taxawee nii mhm. benn VIP mu amul combat muy la de

loolu kese la de. ah parce que il est toujours sur la ko mën a daan défendre rek moo tax. yee dëkk la fi mu ne nii kenn ñemewutul kenn bëggatul jël avance am. te pourtant kuy bëri daa xoo ko bëri ak a mën a bëri. Mm-hmm. dara gën a mën a bëri. moo tax mën a xaree daan. waaw jigéen mbër da koy jàngal attaque ak défensif mbër kenn du ko jàngal dóor moytu nga koy jàngal. Mm-hmm. dóor ñëpp mën na ko su ma la doon nga fay di. Mm-hmm. waaw moytu nga ngay jàng. <laughs> loolay làmb.